wala ngay bëgg di di gis sëñ tubaa ju wér hmm. wala nga bëgg maanaam di dund sëñ bi ak di dund lislaam hmm. yu mel nii ngay tàppe hmm. ndax youtube moom ab penc la moo xam ne ay kër ay kër yu fa yu fa ne néeg yu ne fa nekk néeg bu la ca neex dugg waaye rek waaye dee leen tànn néeg yu baax yi di ca dugg ndax boobu léegi ngeen mën a am jàmm yéen ak seenu njaboot kon nag ñoo ngi leen ñoo ngi leen di eh, wax jërë ngeen jëf